jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyde asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki safo GP TV Sénégal tey nag lii la leen indiloon mu nekk loo xamante ni lu daw yaram la mu nekk loo xamante ni lu triste la benn xale boo xamante ni dafa lakkoon si biir lakk bi nag si la demee ba tànk bi lemu tànk bi commencé bañ bu doon lakk bu métti métti instant bi ñuy wax ak yéen ñu nga koo defal opération opéré bi nag fan yii rek lay doon incha allah waaye nag jot loxoom jotul ginnaawam ñu bëgg nag ñu jàppale ko bu baax a baax képp koo xamante ni am nga dërëm wala am nga sa dërëm nga dugal ko si numéro Wave yi nga xamante ni moom lañ joxe wala Orange Money ndax ñu man koo jàppale bu baax a baax a baax ma yàlla dogal li nga xamante ni mooy li gën yàlla dogal xale bi doxaat ak tànkam si bàkkee Nabi Moustapha mbokk yi ñoo ngi sàkku si ndimbal si képp koo xamante ni rek yaa ngi siifa vidéo bi ñoo ngi sàkku si yow ndimbal lépp loo ñu mën a jàppale nga jàppale ñu ko si bàkkee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aduna heli woli jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna ko fulti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare duna fulti fuyni kono won jaloɓe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi nuyoo di nuyu bokk Tiwaawan di nuyu waa télé bi di nuyu ah, dal tey ah, di sant di leen gërëm ah, di wax nag sama doom dafa lakk mu lakkee yàgg na ren la ci ñetti at corona bi la woon ba léegi ah, waaye nag oh, maa ngi sant yàlla sant yonent bi di gërëm it waa Tivaouane ak waa hôpital Tivaouane fii la lakkee woon fii la lakkee woon si Tivaouane ñu yóbbu ko hôpital Mame Abdou foofa def naa fa lu mat un mois ba ma génnee sama xaalis ji amu ah, gis ma ma dem ICS ma demee ICS alhamdulilah ma fekk fay docteur bu baax ñu koy wax docteur Koli ak Lat Soko a ah, ñu jàppale ma booba li li ñu ah, jàppale ma li ñu may ah, li ma jàppale si ordonnance bu may bu ma kon lim tey ma xam ne war naa ma téeméeri junni ak juróom-benn fukk falaa nekk falaa nekk falaa nekk ba góom bi mu di ma jox ambulance may dem Dakar ak docteur ambulance la ma daa jox moom docteur Koli ak docteur bu ñuy wax do Lat Suk ak maram fay ñoom ak madame Thiam ak ñoom ñoom ñoom kii xale yu jigéen yi fa nekk yëpp daal jàppale ma wax yàlla maa ngi sant yàlla bu baax may dem Dakar ak a ñëw Fann bo booba léegi maa ngi dem Fann waaw am na ñu may dimbale nag wax dëgg yàlla am na ñu may dimbale waaw lakk-lakk bi ah nam demee ah, ah, bi corona bi commencé ba am fukki ah, juróom-benni fan waaw fan ak ñett ci la dem di tàngal ceeb ñu jox ko mu dem tàngal ceeb bi muy di koy dem dem di tàngal ceeb teg ko ci ceeb bi ci ci gas bi di koy yëngal bool bi ci gas bi di ko yëngal bi mu koy yëngal yére yi dugg si gaz bi yére yi tàkk si koom muy daw di wëreelu muy daw di wëreelu mu yàgg ah, fi mu lakkee am benn xale bu góor bu ne ca kër ga daal di daal ci yem fi mu ci yemee mu daw dagg yére yi sotti ko ndox après ci lañ ko yóbbu hôpital ah, bu bu ma ah, hôpital ba la si kaw kër asalem bañ ko demee ñu def ko passement man ñeen juróomi yoon léegi tànk bi xaw a xaw na xaw na tani après ci laa demee ci cadre sec docteur sama xarit ma woo ko mu ah, ma xëy dem fa bisub dimanche altine ma dem fa mu na ma mu xool tànk bi na ma ah, tànk bi nañ ko yóbbu hôpital ma de ma continué moom hôpital Mamadou fa falaa nekk ba ma demee lañ ko yóbbu falaa nekk fa laa nekk nekk am fa lu mat weer dem ba sama xaalis bi ma yoroon jeex sama rek newoon état li ma woo leen téléphone ñu dama jàppale léegi nag ba ma ci jógee nag ma yow ma dem ICS comme li ma la wax docteur Coly docteur bu baax di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal moo ma jàppale ba yóbbu ma ambulance la ma la jox su ma dem Thiès su ma dem Thiès ambulance la may jox ak docteur su ma jógee foofu may dem Dakar am rendiw ma jox ambulance ma dem en Fann ba mu mu faju ma ñëwaat ci laa nekk ci ba ni góom bi wér ni tey nag ma delluwaat ji ah, bi ma delluwaatee Dakar bi ñu bëgg a laa dem ñu ne ma dañ koy opéré tànk bi ma demee naa ah, war a fa fay daal mat xam naa ne 600000 encore war nañ ko faa fay léegi nag euh, booba léegi maa ngi toog di déglu pour ñu opéré ko gàpp. ñaata nga si ñàkk si ah, parce que daal moo ko xayma daal xam naa ne war naa li si dem ci xaalis war mat 4 millions. 4 millions 4 4 man na ko waaw 4 millions war naa dem si tànkam. te ko war a opéré. waaw waaw ñu a opéré ne bu daal li ma lay wax bu gàmm jàllee soo yàlla daañu ko opéré soobee yàlla. yow nan ngay woo fii Tivaouane pour ñu dikk jàppale a baax ñu nga xamante bi nga xamante ni moo sa doom Ah, maa ngi woo ah, ah, monsieur le maire Diop si daañu si moom sax kër yi am na yu mu ci jotoon ak daañu si mbeng mooy tam maa ngi koy maa woo ci ak jàppale bi ak Ablaye Ndiaye Ngalgu waaw Ablaye it kër yi na ci jotoon na ci waaw xanaa nag dañuy dool dañuy jaaral rek pour fàttaliwaat leen waaye ak ku nekk Tiwaawan rek ko mën a jàppale yéen it maa ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal télé bi mu jam ci kanam yàlla jàppaleen ba nga am lu paase lii. yàlla may leen lu kaw seen njort yàlla may leen dund ak wér ak sutura yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci fépp man nag ñëpp ah, merewuma kenn ku ma joxit baax na ku ma joxit merewuma la xanaa di leen ñaanal yàlla rek. mais instant bi soxla nga euh, ko bu baax. waaw waaw fi mu toll xale bi jamono ji dañ ko yóbbu hôpital mu dem opérer naa ndimbal moom. te moom xale la si ñaata at lay toll. waaw ah, war naa am huit juróom-ñetti at. waaw bi muy lakk mi ngi am sept ans. ndax fi mu toll li desaat ndax bu ñu ko opéré encore fii ni opéré bi dañ ci defaat dépassé waat daanaka lu tey na li si demoon ndax eh, gis nga kayit yi nga gis nii après bi ma demee Fann ah, su may dem jëri ranus chaque jour dix mille francs laa laay ñàkk chaque jour dem dix mille francs laay dagg ticket ñu ah, moom li may lépp jeex na ah, parce que gis nga fi ma fi ma dëkk nii ah yow xam nga ci ni mu demee sax man père de famille laa jaboon naa trop wax dëgg xanaa yàlla yonent bi rek moo jàppale waaye it bëgg naa ndimbal daal waaye nag du ma xeebu ma kenn xeebu ma kenn xarabu ma kenn ku ma defal baax na ku ma def ma xam ne ma tiir sama jëliñ yàq bopp du ma xarab kenn ndax kuy ndimbal doo am na yooyu doo ko wax doo am gënale doo am xajale ak seet maa ngi ñaan ñaanal ñëpp jàmm yëpp si maa ko ñaanal ah mo yàlla defal ko jàmm ah mu yàlla dëkk bi ah, mu avancé dëkk bi avancé jëm kanam su ko defee ñun ñëpp ñu ngi suñu bopp waaw yéen it maa ngi sant comme télé bi rek li ma la wax rek waaw ah, maa ngi sant yéen sama rak nga góor gi ak sa seex bi toog tey ah gallaay waaw ndax ah, ba ngeen ah, ba ngeen ko dalay wax yàgg na trop si yéen baax rek a tax ngeen ñëw fi ndax bu leen neexoon toog seen kër ah su ngeen toogoon seen kër it ah du damay toog jàpp saa bopp ngeen toog jàpp seen bopp waaye yàlla ko dëkkandoo ah ngay ànd samay doom nekk am nekk ngeen ay moromandoo waaw maa ngi sant yàlla bu baax nag maa ngi sant yàlla bu baax ndax fii min toll nii damay toog yàgg ni waaye tool otom dikki si kër gi wàccal ma ceeb ak diwlin te li may wax barke suñu baax fi am na bari nga laaj sama sama soxna am na ñu fi ñoo xam ne si xaw ma leen am na ndaw soo xam ne ak kaat kaat lay indi bu weex at mu jot mi ñu gaare fii wàccal ma ceeb suukar meew beurre soog ak sokolaa yëpp indi ma si kër gi waaw waaw léegi nag loolu laa doon am li may wax kon euh, ma daal ma ma tëj ci euh, waxtaan bi. xam naa ni sax euh, incha allah ndimbal bi. Ah. ñun ñii seet si la. waaw ah. ñu si njëkk a jiitu bu soobee suñu. waaw waaw balaa gàmmu ñëw. Ah, waaw waaw incha allah ndimbal yëpp boo xamante ni as na fi rek. waaw yéen lu ko indil si coobare yàlla suñu borom bi di wax ni tamit yàlla na yàlla yëkkati sa doom bu baax a baax. waaw xale bi doon tàggatoo tey lan ngay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo xanaa di sant yàlla rek ak yonent bi di sant sama ndey sama baay ak sama soxna mm-hmm. jàmbaar la ndax ba mu la xibaar yi moom itam ah, ci kenn bu xëyee ah, ah, gor la waaw bu xëyee même si ci bu ñu amee suñu dërëm ak suñu fukk ak suñu ñu bool def def def mu dem marché bu di ci togg jox samay xale kenn xamul ma dara ñaari wu ma kenn léegi wu ma maa sant yàlla bu baax daal wax dëgg yàlla daal sant naa yàlla bu baax xale bit xale la waaye xale bu am wërsëg la yàlla kaar kaar waaw di ko ñaanal yàlla rek moom nee na wér ba jàngi la bëgg moom loolu la wax ne buñ ko laajee loolu lay wax moom nee na moom ba jàng la bëgg waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi leen sant maa ngi sant baax di leen ñaanal yàlla bi yàlla na jëm kanam yàlla na jëm kanam temps yooyu corona ba la mi ñetti at ba léegi mu dem ak dëkk di faju rek dama dégg dem ñu lañ ko yóbbu di ko jàpp nañ ci bu baax SOS fépp ci jàpp nit bu baax a baax ñu ngi leen sant yàlla di leen ñaan yàlla. léegi euh, ngeen ñàkk si lu toll ak 4 millions. ndax bu dul ñoom dina a métti sax bu doon ndimbali a métti waaye yàlla na. léegi ñàkk si xaalis bu bari. waaw ngeen ñàkk si ñu war koo opérer beneen opérer. waaw nii lan ngay woo oto yi nga xam ne ñoo caawat ñi nga xamante ne ñoo caawat def lu baax ak association yi nekk caawat yëpp. mooy ñu war a rek ñoom Josi ñoom Jaañ Mbeng ñoom Olaay daal waa mairie daal ak waa daal waa yëpp ah, ñu ngi la ci yaay en tant que yaay si doom ak yaay ni mu mel si doom sa doom lii ah, dal ko bu dootu tëdd ba guddi yenn saa yi ni sax mu xaw am lu si yow bu ndaw ah loolu kay métti woon na loolu na waaye léegi baax na loolu na temps kay moom nelaw sax kenn daanaka doo ko def loolu nelaw def dara suufa ko yëkkatee ko tëral ko def tànga métti loolu jàpp ci rek yay jooy lopitaan fa laay nekk muy jooy mu toog ko muy jooy mu toog mu ma ñaan may ñaan ci yàlla rek yàlla mi ko tegee dina ko teg waaye yàlla baax na def dem ba baax nekk fa ñu baax nekk fa ci ba ay baalaanaa di ko jox dina muy lekk nit ñu baax ko dem nit ñu baax ñaa nga fa waaw moom docteur moom def na ci moom yaara moo ko mën a fay def na ci lu bari yaay booy looy tàggatoo ah. xanaa ñaan leen rek télé bi jëm kanam yàlla may ñu wér ak wér le may leen ñëpp fi liggéey yàlla may leen wér lu mën a ñaan tey yàlla na télé bi yàlla may leen may ko ñëpp may ko seen i waajur may ko ñëpp daal